ci liberté de ton boobu sax mun nañu wax ne dooree woo ko ci président Macky Sall euh, ba nga nekkee ak Abdoulaye Wade sax nga xam ne mun nañu wax ne moo la dugal la ci euh, politik gannaaw ba nga euh, créé woon benn kii. mouvement wàccoo alternance liberté de ton boobu tamit leen nemmeeku woon ci kii di Moustapha Diakhaté est-ce que mun nañoo jàpp ne Moustapha Diakhaté c'est un anticonformiste. bon ba léegi su ko tudd noonu mais Moustapha Diakhaté li mu doon daal mooy c'est un maanaam libéral maanaam libéral day nit ku gëm liberté man loolu laa doon gis nga président Abdoulaye Wade 1993 bi ñu jëmee ci élection présidentielle dañ doon def bilan ma jël kàddu bi ma waxee ba noppi daf ne ma yow Moustapha moom saa su ma falee bés bu ma faloo xam naa ne yaa ma jëkk a contre 1993 la ma wax loolu c'est bi mu faloo 2000 novembre 2001 la ñu créé sunu kuréel gi ñu tuddee woon wàccoog alternance di ko di ko fàttali li mu sasoo woon réew mi di ko jéem a jubbanti booba aussi nag daan nañ wax lu metti waaye ab Abdoulaye moom mu muñalul nanu suñu liberté bi ñu amoon ci wàccu alternance nekk ci biir parti démocratique kon dafa mel ni comme euh, Macky Sall ak euh, Abdoulaye Wade Macky Sall moo gën a euh, démocrate que Macky que Abdoulaye Wade. déedéet Abdoulaye Wade gën a démocrate parce que Abdoulaye Wade moom mayoon mm-hmm. nanu ñu suñu créé suñu wàccu alternance su defee lu baax nu ne baax na su deful lu baax nu ne baax na waaye musuñu ko musuñu musuñu musuñu yëg ne naqari na ko kon est-ce que Macky Sall dictateur bu koy. nit ñi non du ma ko tuddee dictateur parce que dictature moom bu ko bëggoon doon Sénégal dañ ko dul nangu waaye xam naa ne ci man sama wàllu bopp day ci parti démocratique Sénégal liberté ba ma fa amoon Macky Sall moom nangulu ma ko ci biir biir alliance pour la république loolu nag man dama jàpp ne loolu baaxut ci moom parce que wala fa def ne ku la tungoom nga war koo sut te ci wàllu démocratie Abdoulaye Wade ñoo ko war a gën a nekk démocrate malheureusement ci dans les jàpp naa ne Abdoulaye Wade moo ko gën a ubbeeku ci toléré ay ay ay divergence digganteem ak ñoom c'est vrai man mille la ñu créé woon suñu wàccee alternance Macky Sall bi Abdoulaye Wade dalee ci kawam bëgg ko sànq man boobu maa ngi ci cabinet président de la république ah, maître Abdoulaye Wade jamono jooju Abdoulaye Wade ñëpp xamoon nañ ne Macky Sall laa doon jàppale parce que damaa jàpp ne tàggoo président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade baaxul ci président Abdoulaye Wade ndax bi mu ko defee dama ko dem gis ko ne ko président di tàggoo ngaa ku ne mu jig la waaye Macky Sall mii de boo tàggoo moom ba déglu ndànk dina am ay jafe-jafe booba itam du ma wàll yi ma dara mais sentir naa ne bu Abdoulaye Wade dale ci kawam mën na indi jafe-jafe Abdoulaye Wade dal ci kawam fas yéene ko sànq man ma ànd ak yi di ko jàppale di jéem a defar seen diggante loolee nag ci defar boobee jàpp naa ne bokk na ci ak ñu ak ñeneen ñu mel ne man ñu wër Macky sàll aar ko tax na mu mucc ci loolu ab Abdoulaye Wade wër gi ñu waroon Macky Sall aar ko defaraat ko bi mu tàggoog moom itam ñu defar ko ba mu jub ba mu jekk ñu sëpp ko ci réew mi ne kii mën naa yor réew mi jàpp naa ne bokk na ci li tax ñu jox jox réew mi kon man tey jii man jàpp naa ne sax man sama am naa satisfaction totale sama diggante ak président Macky Sall parce que nit ki bu fekkente ne dañ ko bëgg a songu nga bokk ci ña ko musal ci songu su fekkee daa réew mi nga fexe ba bokk ci ña ko ña ko jox réew mi jàpp naa ne yow war ngaa damu parce que nag yàlla dimbali na ma ci sama dund bokk naa ci ku def ku fal ñaari président la république yoo xam ne yëpp ay alternance la kon encore yu fois man euh, maa ngi koy sant maintenant nag anticonformisme bi moom yàlla moom bi la noonu mooy su fekkente ne mbir dafa am dama koy natt xool ba xam ndax lii baax na wala baaxut saa su ma jàppee ne baaxut bu fekkee même ci sama camp lañ ko defee danaa yëkkati ne baaxut su fekkente ne nag daa baaxit nag danaa ne baax na waaye man daal li ma mënut mooy lu fi ma bokk lu ñu def ma ne baax na lu ñu def maanaam lu bu defee lu bon rek ma ne ma ne baax na loolu moom mënuma ko maintenant nag souvent nit ñi da nga dégg ñu waaw euh, mbirum parti dañ ko war a waxee ci parti bi dëgg la waaye alliance pour la république mi ngi am na fukki at ak benn instance yi nga xam ne fa la askan fa la pa war a dajee di fa waxtaane benn da ciy duxut ji bu dee secrétariat exécutif national 2019 bi mën naa ne ñaari ndaje la ci daje benn daje bu njëkk bi sax moom rek moo wax après mu tas ko bu mujj bi man bi ci tegu man déwuma kon encore une fois amuñu sax instance boo xam ne daañ ko mën a toog la waxtaane kon li nga xam ne jàpp naa ne fi ñu war na ci gën a góorgóorlu mooy parti bi nag ñu delloo ko militant yi tam bañ a nekkati parti tax moom Macky Sall mandaam cinq ans a delloo parti bi militant yi ñu tànnal seen bopp seen i responsable ci seen bopp ci département i bopp seen i responsable ci au ko defee ñi nekk ci parti bi takki ndomba tànk muy ndomba tànk boo xam dañ ko jëlee ci légitimité démocratique su boobaa parti bi taxaw rôle bi mu war a joué diggante président de ak askan mu mën koo dox rôle bi mu war a joué diggante askan bi ak président de la république mu mën koo dox malheureusement loolu parti bi ñu doxalu ko. waaw dafa mel ni su ma la déggee déjà suma première question da nga am déception si kii di président Macky Sall ak tamit euh, est-ce que tamit mënuñoo jàpp ne alliance pour la république APR euh, il est victime sevrage qui est est-ce que nekku na président Macky Sall da ko feral euh, te feralam jotul ndax dafa nekk si benn alliance bu mag si. si alliance dafa nekk si benn alliance euh, bu mag euh, boo xam ne moom mu tee fidéliser ay euh, naataangoom yoo xam ne ay nataangoom pour ñu toog bañ a dem moo ko ëppal importance mu gérer affaire yi partem ba ñu nemmee ko sax guéguerre bu métti au sein de votre parti xam nga du man amu ci moom déception parce que nit ki man dama koy jàppee ni mu doon rek du ko jàppe sama parce que dafa am benn kilifa gu mag wax ne nit boo ko mënta mu ñëli ayibam seenu ànd du yàgg Euh, c'est vrai euh, du du ma ne président dafa dafa sevrer parti maanaam daf ko feral déedéet damaa jàpp ne kay dafa dafa dafa naj parti bi parce que parti bi am na fukki ak benn ñu am defar statut defar règlement intérieur waaye parti bi ni muy doxee lenn dëpp wu ci ak statut lenn dëpp wu ci ak règlement intérieur amul benn instance buy dox au niveau local boo demee dans les 557 communes yi ni ci réew mi doo fa fekk benn commune boo ne parti bi ñoo militant yi ñoo leen tànn amut ci au niveau départemental amut ci au niveau national kon moom ci boppam dafa mën ni jàpp ne moom moo dafa nekk parti bi maintenant mu mu tëyal coalition benn bokk yaakaar man d'accord naa ci parce que si Anta Diop dafa ne xam bokk ci lu moo gën a yor lu tuuti te jàpp naa ne coalition benn bokk yaakaar bokk na ci ndëslaay gi nga xam ne ci la dëslu ba mu premier mandat mu am ci ndam am ci liggéey ci lu rëy Sénégal yi wóoluwaat dénkaat ko askan wi kon man jàpp naa ne tëye coalition bi lu ko war la waaye nag pour moom ci boppam. téye gi mu war a téye euh, coalition bi gën a dëgër dafa laaj nag parti bi nga xam ne moo ko moomal boppam parti bi taxaw ci reen yu dëgër taxaw ci position yu dëgër ñu am structuration am organisation ñi nga takk ndomba tànk am am légitimité démocratique waaye tey jii moom parti bi amu ci kenn koo xam ndomba tànk ba nga takk c'est un tànk boobu da koy yëri ci légitimité démocratique parce que moom un mandat de cinq amoon mandat bi mu jeexee li ëpp jàpp daal mooy ci wàllu parti bi moom war nañoo jublu ci defaraat parti bi euh, structurer ko organiser ko parce que loolu moo mën a dindi xuloo bi nga xam ne dañ koy xuloo ci suñu biir te mu nekk loo xam ne ñagasal na xar kanamu parti bi ba bu ñu defoon daal Sénégal yi dañu jéppi. waaw sénégalais yi dafa mel ni jéppi na leen parce que fu mu toll ni mun neen ne euh, débat yu suufe la ñuy nemmeeku si biir APR ay xasante waaso ay yoo xam ne mooy loolu. Euh, te gouvernement sobre et vertueuse moom ngeen jaayoon. sénégalais nga bu ñu bëggee débat yi nekk dafay fekk parti bi di di di dox ci mbir yu élevé c'est-à-dire bu fekkoon ne parti bi dafa taxaw ni mu war a taxawee di fexe jaf jafe jafe-jafe yi askan wi am mu di ko xam di ko jox président de la République di ko jox gouvernement bi di ko jox député yi kon jàpp naa ne daañu tal lu dul xasante su fekkoon ne parti bi dafa taxaw ni mu waroon taxawee bu gouvernement bi defee dara assemblée nationale def dara mu jël ko yóbbu ko ci askan wi expliqué leen ko kon jàpp naa ne bu ñu ko defoon du ñu tala xulo waaye nag ginnaaw parti bi léegi kenn ku ne euh, maanaam pas-pas booleetunu kenn ku ne sa bopp nu boole organiser wuñu ko ñu def ko gur-gur goo xam ne da nga fay fekk till fekk fa bëy fekk fa bukki loolu mënut a def lu coow lu bari ñu def boole ci nag ñu def ko régalu làmbigolo ku jóg daanu su ko defee lan lay doon mooy bruit ak pënd ak xaste ak tibbante tànk tey jii boo bëggee xam lu bon ci ku bokk APR da ngay dem déglu militant APR loolu nag jàpp naa ne du du du cëram parce que moom moo jiite parti bi te ay nit boo leen jiitee da nga leen a man a diggal lu baax di leen tere lu bon malheureusement nag moom day toog di seetaan te seetaan googu jàpp naa ne du cërub kilifa. dafa mel ni coow APR boobu sax moo ñëw ba ñëw euh, assemblée parce que majorité mécanique bi mu ngi foofu noonu ban regard nga am si doxalin assemblée nationale te lu si gën a yéeme assemblée nationale dafa mel ni léegi euh, problème euh, interne problème personnel lañ fay lijjanti. waaw xam nga loolu aussi damay dama bëgg ñu am tuuti maanaam parce que boo xoolee coowul assemblée li muy bari bari li génn ci média yi ay député yi mu concerné mu tudd ginnaaw nag concerné wul li mu concerné fukki député assemblée téeméer ak juróom fukk ak juróom benn fukk ak juróomi député ñoo fa nekk kon bu ñu jàpp bu fukki député baaxut assemblée bi yëpp dafa bon déedéet am na nag député yoo xam ne nañuy doxalee jàpp naa ne du taxawaay bi nga xam ne moom la député war a taxaw loolu nag ñi nga xam ne dañoo bokk suñu coalition bokk suñu group ñun ñoo war a defaraat suñu suñu coogaay loolu li ko indi lépp rek mooy laisser aller bi am ci parti bi instance yi benn doxul kenn ku ne sa bopp nga fa nekkal finalement li la mën a indi moo tax la désorganisation du parti l'absence de structuration du parti l'absence de dévolution des responsabilités démocratiques du parti lii rek la mën a jur c'est-à-dire bu ñu bëggee coow li dakk ñuy coow bala boog coow li ñuy coow coowu réew mi la ñu war a def mooy pexe ba parti bi ña nga xam ne ñoo fay takki ndomba tànk ndomba tànk boobu jëlee ko ci militants yi su ko defee boobaa militants yi bu amee ci ñoom lu leen naqari mën nañ leen faa jëlee waaye askan wi ko